Euh, ñu remonter un peu l'histoire en 2021 février 2021 mhm. bi l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko di soog a éclaté daa am loo bindoon ne mhm. nañu teg lépp ci suuf deux ans après li ci xew bëri na li ci mhm. yàqu euh, ci ay matériel xaalis bëri na ñi ñàkk seen bakkan kenn waxul nu mu mel boole koog na installé benn instabilité euh, benn psychose ci Sénégal ci sénégalais yi ak des lendemains incertains ndax lii nii yëpp xew tey nga gisoon boobee bi ngay wax ñu teg lépp ci suuf xam nga lii lii problème homme politique yi mooy dañu vivre li ñu wooyee la tyrannie de l'immédiat waaw l'immédiateté de l'urgence dañuy dund ci benn urgence boo xamante ni du ñu nangoo génn ci contexte bi ñu nekk pour am gis-gis bu holistique mm-hmm. gis-gis bu xaw a yaatu mais boo gisee li nit ñi dund ci covid bi jamono yooyu ni dëkk bi méttee woon sénégalais yi aussi dund politiquement ay jàpp ak gaañante yu xaw a bari ci politique. ñu dem ba toll ci benn jamono boo xamante ni les sénégalais ont fait un choix euh, jàpp ni dëkk dafa war am pouvoir war a am opposition am benn opposition bu génn. nit ñi jàpp ni tamit euh, xale la ndaw la ay ndaw ànd ak moom ñu bëgg a dal ci kawam euh, je je savais que ni yàgg yàgg fii lay mujj mooy dinañu. génn ci crise sanitaire bi ñu nekkoon nekkoon ci crise économique dinañ dugg ci crise politique mais li gën a bon ci crise politique mooy du gaaw a jeex mm-hmm. ndaxte politique ay ay góor a koy def d'habitude day bëri test day bëri jaayante doole day day gaaw day génn day génn ci xel ñëw ci xol maintenant day am passion bu bëri boo am passion mooy kii duma ko bàyyi mu def lii te nit dina yor doole état di politique di xeexee doole état bu xeexee doole état nag te xeexewul ak xel di demee xol li muy yàq day bari je savais que nii day yàq day yàq loo xamante ni. Mhm. pour ñu reconstruire balaa ñu koy tabaxaat dañuy toogaat ay at yu bari. Ah. malheureusement dugg nañ ci système